chers amis fidèles internautes de Sunugal 24 nuyu nañ leen bu baax a baax amati mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ci seen biir émission Sunugal People mu di émission bi nga xamante ne fii la ñuy faram-fàccee lépp luy information ñeel célébrité yi ma ci ànd ak toujours la noire sœur de Ben Eva sama rakk bi ma leen nuyu bu baax a baax. arrêté boo ma namoon ma seet si Sénégal gi yëpp seet si moom ma feebar bi ñu nga toog day ñëw régulièrement parce que li kenn xamu ko. ma war a bàyyi sonal na ma trop ma namoon mami yi li ma jot ci ay appel ak ay message ana mami bii bëri ana mami bii bëri. baal samay toj toj samay waxi toj toj dañuy actuellement gars di xëm naa la donc am naa mbégte bu baax a baax jàkkaarloo ak yow di nuyu ami internet suñu dal 24. loolu yëpp yaa ko wax. gars yi di bërëm ngoo ko def ak mbir. Eva comme ni ma ko waxee léegi léegi sunu euh, émission sunu gaal euh, people tey dañu koy door rek euh, génn prison wu kii di délégué Amar di frère ci kii di Cheikh amaar moom génn na prison mais bi mu génnee prison dafa mel ni ay remerciements ci ci Wally Seck la ko la ko jublu quoi dégguñu fenn fu mu waxee ci ci frère bi maanaam. <laughs> amaat n'empêche que mu waaye am na des relations yu bien yoo xam ne suñu nee délégué rek dafay dem ci wàllu sax mm-hmm. wax nga ko léegi que euh, génn na prison vu que dañ ko tegoon loxo ça fait euh, six mm-hmm. parce que dafa amoon coow lu duggoon loo xam ne wàllum escroquerie abus de confiance moom ak waa ji c'est que doon affaire ceeboo wàcc ay conteneur ak lu ni mel donc mm-hmm. histoire comme ni nga ko jàngatee ni la ko ñu bari jàngatee que voilà ñenn ci suñu naataangoo yi dégg nañ ko micro remercier na Wally Seck mais déggoo benn yoon foo xam ne wax na fa turu ki nga xam ne mooy Cheikh Amar donc ñu bari dañuy laajte nga ba xam euh, délégué Amar ak Cheikh Amar comme li amoon comme ndax Cheikh Amar bi problème bi amee jàppale na ko est-ce que lu mhm. délégué mhm. Amar def moo tax dafa yàq ne sama gis-gis laay waxee dafa yaakaar ne daf leen dafa dafa wàcc seen daraja parce que dañ ko tudd ci wàllum escroquerie xaalis bu toll noonu. est-ce que loolu ndax peut-être mu bëggoon ko yar mu jékki-jékki wan ko ginnaaw kenn xamul mais constat bi nga def laa def ñu bari moom lañu moom def que voilà bi muy remercier. mbokk man je pense que mbokk kenn ko wan ginnaaw Eva. parce que bu dee. famille amaar amaar rek waaw ak ak lu mën a xew même bu fekkoon dafa rey nit. Mhm. l'erreur est humaine. Mhm. def na erreur donc. waroon na ko mën a soutenir. Mhm. xamuñu mais ci constat bi ñu def. Mhm. par rapport ak ni mu réagir après mu génnee donc suñu xel lañ ay ay nit lañu dañu am xel di xalaat dañu naan que kii ak Cheikh Amar le courant ne passe plus. ah en tout cas dégguñu fenn fu mu waxee waxu Cheikh Amar Wally Seck daal la remercier ba tey dañuy desandi ci euh, waxu Wally Seck bi yoon euh, kii di Sidi Diop moom yàgg na dégg problème ak euh, Wally sek chaque jour Sidi Wally Sidi Wally c'est-à-dire cette fois-ci Sidi Diop wax na ci. ci lu mu musul def su ma juumlee parce que ñoom ñaar c'est-à-dire si wax sax xanaa dafay dellu si waat pour andi ay éclaircissement mhm. peut-être ak yenn points yoo xam ne ñu ngi koy faral di wax saa su nekk ñoom ñaar dañu am benn rivalité bu nekk seen diggante te à chaque fois bu loolu amee dañ naan que Sidy Diop moom mooy jóg pour concurrence ak Wally moom mu koy rivaliser mm. wala eh, dafay def marquage à la kilo mm. moom nag euh, bon démentir na comme ni mu ko doon defee sa su nekk ni que Wally du concurrent am mm-hmm. euh, frère am la mm-hmm. aussi reconnaître na ne Wally bokk na ci ñi nga xam ne tey appuyer nañ ko ci carrière am parce que mm-hmm. boo xoolee Sidy Diop du benn du ñaar du ñetti yoon Wally na ko sur scène présenté ko nit ñi dañ ciy bàyyi xel nee na waa ji concurrent am frère la ko jàppee dem na ko joxe benn exemple comme quoi que bi Papa Thione génnee àdduna mhm. bokk na ci ñu njëkk a dem ci kër Wally mhm. pour dem taxawu ko wala mu bokk ak moom naqar bi nga xam ne mhm. moom la ñu moom la ñu moom Sénégal daf am ñoo xamante ne benn parti boo xamante ay seytaane lañ c'est-à-dire ñoom ñoo indi moom moom na ko nee na que seen ay fans ak média yi ñooy indi des fois rivalité rivalité boobu di am seen diggante parce que bu dee fans yi kenn ku nekk da ngay ñëw di jëmale ci sa hmm. côté comme ni ñu koy defee mbëru làmb yeeg seen i supporter kenn ku nekk da nga naan sama mbër moo mën mooy daan noonu la ko fans yi di defee voilà kenn ku ci nekk boo sañoon sa artiste moom mooy nekk à la hauteur hmm. léegi nag moom nee na fans yi la kenn ku nekk da nga naan ko waalee mën ñeena Sidi Diop moo mën donc foofu noonu fans yi ñoom ñooy guerre entre ba pare yow Sidi Diop reprendre na fi ba taay ay son Wally Seck donc man bi ma commencé dégg coow seen diggante ñoom ñaar affaire bi daf ma bett mais pour dire vrai nag marquage à la kilo boobu ñu bari nemee ko nañ ko donte que dafa dem ba ci biir man sama gis-gis mu bëgg a reconnaître wala mu bëgg a ñëwaat indiwaat ay éclaircissement peut-être ci lu ñu koy duut baax duut ba parce que ñu bari dañu nekk Sidi Diop nañ ko waxtaanee gërëmul gërëmul nan lañ koy wax bu euh, alom lekkee. Euh, bu ko bu cooy lekkee alom. na ko gërëmee ñay ñay voilà. Mm-hmm. que Sidi Diop tey jii amul. waroon na mën a xool leneen lu dul di concurrence waal yi wala mu koy def marquage à la kilomètre parce que gis nañ fi. quatre ba cinq fois yoo nga xam ne Wally dafay génne album le même jour Sidy Diop génne album te boo xoolee seen titres yi. pourtant man man dama jàpp ni dara nekk day neexal géew géew. d'accord loolu marquage à la culotte boobu mm-hmm. peut-être que moom côté boobu la sentiroon communication ne lii la mën a war a mën def. ba vision bi Wally am visibilité bi Wally am du moins. Mm-hmm. Sidy Diop am parce que Wally boo gisee bu muy soog a ñëw sur scène. dafa doon def lu ni mel suñu papa Youssou Ndour. voilà loolu laa doon bëgg wax Waly Seck ak yu Ndour diggante bi tamit noonu la fa xawoon demee te pourtant nekkul diggante Waly ak Youssou mais fans yi. fans yi voilà donc di ko d'accord. Mhm. que fans yi ñooy jaxase yi tamit kenn rawu leen da ngay dem. sa sa classe bi a <laughs> yow tamit ci nga bokk da ngay gis Sidi Diop woy woy boo xam ne da nga ne Waly lay léebu la lan na nga gis Waly woy woyam boo xam ne ñu ne Sidi Diop lay léebu comprendre nga ñu bëgg leen jaxase ci seen biir li li li ma Diop xaas waxoon saa suuf jooju ñu jékki-jékki dina bindal saa suuf. saa suuf saa suuf en tout passage Diop mu ne ma <laughs> mu ne ma concevoir ñuy bind chaque jour Diop xaas saa suuf saa suuf ah comprendre mais c'est une belle parenthèse la woon mm. donc comme moom reconnaître na wala mu dem ba. gis ne que Wally frère am la et li jotoon am seen ginnaaw dañ koy dañ koy bàyyi mu jàll. si jàll na sax jàll na sax amoon na moo demee noonu. Mm-hmm. donc euh, bi. Mm-hmm. des fois da bëgg a fës wala nga gis ne kii bu ma cokkaasee ma mii damay jéem a fël donc dama cokkaas milieu bi demee na. sa ah, classe sa classe bi dañoo doy waar Eva sa classe bi dañoo doy waar ba tey dañuy desandi ba tey dañuy desandi ci kii di euh, Sidi Diop cette fois-ci euh, le 30 passé doon def soirée. même jour El Hadj Keita def soirée le même jour les gars yi dañ ne su ay soirée politique la woon diggante kii di Cheikh Ba di wuyoo ci turu Messi nekk foofu ci Medina ak kii di Bamba Fall. waaw loolu xel mën na ko nag. Mhm. dañu politiser seen soirée yi. Mhm. gis nañ ne kenn ku ci nekk ak camp nga faroon. Mhm. Bamba Fall mu ngi woon ci camp aussi Diop. stade bi Bomar Diop. Euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ba. ku ne xam na ko ak El Hadj Keita. loolu dëgg la loolu moom dañu la El Hadj Keita dégg mu mm-hmm. wax ba noppi. te tuddul te tuddul Messi. c'est vrai parce que peut-être ñoom ñaar seen jaar-jaar ñoo ko xam. Mm-hmm. léegi euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ba donc mën nañu wax que ne soirée El jàpp na ci le le fait que mu am ba pare def ko. dans l'air libre. Mm-hmm. maanaam amul entrée amul dara. ce qui veut dire que ni am na ñu nekk si ginnaaw. parce que lu mu waajal ay weer la. si ku ne xam ne ne El Hadj mu Medina. voilà am na fa base bu dëgër parce que Médina. dañuy sot sot boo xamante ne nii parce que gis nañ après ay vidéo yu nga xam ne si TikTok bi gars yi wax ne que pourquoi ñu jëli euh, ma Guédiawaye si banlieue bi di ko jéem a andi Médina mais foofu d'accord ma ak. non mais stade Iba Mar Diop. voilà d'accord ma ak ñoom parce que Sénégal benn bopp la. El Hadj Keita tey war na mën a jugee Médina dem Pikine tëggi concert ak nu mu mënti toll. mais loolu yàgg na ay Sidi Diop mën na euh, euh, Guédiawaye wala Pikine mu dem Medina Wally Seck war na mën a dem feneen ak feneen donc Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom. est ce que am na am na ay fans Medina parce que gis nañ ko voilà. soirée bi fees na et ma ci gën a leer yi dañu engagé woon jour boobu. Mhm. Sidi Diop dafa fees del bay mhm. puuj. Mhm. Elage Keita la ne. entre banlieue entre banlieue voilà voilà kenn ku ci nekk di di wane comme li Siri Diop waxoon rek ne mhm. sama fans. Mhm. wala sama saar mhm. moom moo dàq way kii parce que gis nañ soirée Siri Diop Bamba ko sur mu nekk loo xam ne lu ñu rafetlu la mais El Hadj Keita aussi ak ak ak Cheikh Tidiane Ba. mais lu ma mënul concevoir mooy que ni ñoom bu fekkee dañuy politiser ñaari ñaari artistes yooyu noonu di leen jàpp di leen féngale xam nga parce que nit ñi kenn moomu leen. après dégg nga ci yenn critiques yi dégg nga ci yenn rumeurs yi dégg nga ci yenn analyses yi dégg nga ci yenn commentaires yi. Mhm. que Bamba Fall dafa jël Sidi Diop pour fëgg ko ci kaw El Hadj ci Ahmed Tidiane Ba dafay jël. El Hadj Keita pour fëgg ko ci kaw Sidi Diop voilà mais ñoom ñaar mënuñu jàppandoo même heure jàppandoo même jour. même jour yaa am na ci koo xam ne yëg na programme na jour bi hmm. mu jël euh, programme boobu def ca programme am hmm. ba tey ci ñaari homme lay wax waaw parce que non waxuma ci ñaari artistes yi ci ñaari homme lay wax voilà pour wan kenn ku ci nekk wan sa morom ne ko voilà man nii laa toll hmm. ah Eva eh, eh, waxal El Hadj El Hadj Keita. non waxee woo woon noonu. El Hadj ngeen eh, ni Eva di waxee El ko bëgg c'est mon frère que j'aime beaucoup. El Hadj Keita. je sais. il est modeste. moo tax nga naan El dafa nekk artiste bu nga ne man fu ma taxaw seedeel ko ko. ñu jàll. il est joignable. heure boo ko woowee jot ko ak ci lu mën ci doon ba dafay nemmeeku ci Diop xaw ma ko mosuñu toog mosuñu wax téléphone. ñu jàll kooku man Sidi sama papa la ngay wax ak bàyyi ma kooku sama papa la maa ko bëggal sama bopp rek leen. Euh, Eva ci euh, kii di euh, xale bi di Dieynaba Balde taawam ak kii di Diop Iseg ci ci ginnaaw amoon na fi problème ay fait de viol lañ doon wax genre ba ñu tëjoon ci kii di Diop Iseg. cette fois-ci ñu ñëwaat parce que am na ci ñu bari ñu jàpp ni peut dossier boobu dañ ko classé kenn mësu koo classé décembre incha allah dañ koy ubbiwaat mu mel dañ leen war a jugé ñoom ñaar. ah parce que boo gisee Diop Isaac liberté provisoire mm. donc euh, du woon dossier boo xam ne classé woon nañu ko sans suite. Mm. parce que ak coow mu tëddee woon moment bi nga xam ne ñi ngi bàyyi Diop disons qu'il était malade dafa feebaroon ay avocats am ñaan que mu bàyyi ko. ak waxtaan peut bi nga xam ne amoon na ci seen biir ñu dem ba ñaari famille dajaloo waxtaan. Mhm. pour ñu bàyyi Diop Iseg. Mhm. par la suite gis nga Dieyna. Mhm. elle a fait de sorties yoo xam ne gis nga ko lu ci wax pour jéem a peut rafetal pour wax ne que voilà li am am na ba pare pour expliquer les détails mais man jàpp naa ni que. c' est le moment de l' affaire de Diop Iseg ak Dieyna Baldé. si dafa jot nag. voilà dafa jot parce que bu ñu xoolee depuis 2019 ba léegi euh, coow li en fait ba mën jàpp ne que li am ci problème mu Bril ak Dieyna Baldé daf ci joué waat. daf ci joué waat Eva ci loolu doon wax daf ciy joué waat parce que kii di Dieyna c'est-à-dire pour ñun ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi doon suivre euh, histoire bi bi problème problème am ak Bril ñëwee ñu bari seen version dafa changé. d'accord. parce que parce que li jotoon am à l'avant la ñuy bëgg a jël méngale ñaari affaire yi. exactement te amaana mën na am bokkul. comprendre yàlla rek moo xam. Mm. mën na am ñaari affaire yi bokkul. Mm. mais man lu ma wax sànq rek c'est le moment de tirer la bâche sur l'affaire de Diop Iseg ak Dieyna Baldé comme ni ñu ko waxee que décembre incha allah dañu war a. dem wala ñoom ñaar peut-être confrontation la ñuy def wala. ak lu mu ci mënti doon ñu àttaleen une bonne fois pour tout kenn ku nekk xam fooy féete Diop Isaac bu dee dañ koy bàyyi mu demaat këram mu demaat këram Dieyna hmm. Baldé après ñu jàll ci leneen mais Dieyna euh, ba Baldé tamit tontu na dafa mel ni ay détracteur am ñi nga xamante ne ñu koy saaga di ko wax ginnaaw mel ni loolu daf ko métti ba tax nag bu def sorti moom nee na foog mu wax man bu doon maay moom du ma wax gisaatu ñu boo xam ne def na ko. Hmm. parce que boo xoolee ñu bari dañu la wax ci amul conseil wala peut-être amul ku koy. boo xoolee bu baax tamit noonu lay nduru xale bi amul conseil amul ku koy conseillé. Hmm, hmm. genre xam nga parce que sorte boobu man bokk naa ci ñi toog ne waru ko woon man parce que déjà dafa génnoon pour seetal boppam mais. dama jàppoon ne lu mu defoon yëpp après après amul amul sens en fait. parce que dafay dafay mel ni comme si yow danga bëgg a setal sa bopp mais yaa ngi jël ndox bu tilim di ko sangoo. non mais c'est ça en fait c'est ça parce que tamit yow a nekk xale bu ndaw. sa ay morom yi nga jugal ñooñu mooy ñi nga xamante ni ñoo nekk foofu ci euh, seen petit gàllé doo ci dégg kenn ci ay njuut njaaj yow. à chaque fois jeena ba balde jeen wax jigul sax bant waxtuma la ak doomu te xale la en plus am na yoo xamante pour war na ko war a mën a daw c'était pas normal c'était pas normal li xew ci digganteem ak Bril xew ba pare mu dem di jéem a def. c'est ça peut-être démenti boobu mu def dégg naa Tange di wax ne que voilà amul ku Tange wax dama koy soutenir Dieyna bu amul ku ko conseillé mosul génn ci interview boobu naan dafa jéem a leer. exactement quoi que ce soit parce que sénégalais yi kenn moomu texte lire ko da A à Z mais kenn ku ci nekk mami am nga droit ne kii lu mu wax gëm naa ko am ne kii lu mu mm, am nekk en couple loolu kenn lijjanti ko yoonu kenn nekk ci. mais lan mooy lu tax sax nekk en couple ba pare jàkkaarloo télé bi naan la ñu. en couple loolu di justifié wu di leen wan ne leen en couple la ñu nekk wala genre problème bi am na seen diggante yi donc atte nañu ku nekk. Euh, pare na ci mu dem mais dañu gisaat ces derniers temps moom Dieyna mu génn si je ne me trompe pas c'était avant-hier. sénégalais yi dañoo soxor surtout ñu koy saaga. di ko mhm. xas moom mënuluñ ko dara. donc dañ koy xooxatal pour jéem a yàq carrière mais dafay foncer. et eh là man je me demande où sont les parents de cette jeune fille là. sérieusement quoi parce que ay dégâts rek la xale bi di def. man xale bi mu xamee ba léegi ay dégâts rek lay def. où sont ses parents. nekkatul benn xale bu nga xam ne dañu naan kii c' est un mineur c' est une mineure du moins. mais xale la elle est majeure et vaccinée déjà non non déglu ma parce que. à chaque fois boo koy déglu interview muy wax da ngay sentir ci li nga xam ne moom mooy maturité bi ci muy waxee parce que dafay am benn langage ba nga xam ne moom lay utiliser des fois même elle code ses mots pour ñi bañ a comprendre donc kooku elle n'est pas folle yaa ngi dégg da ngay sentir éloquence bi nga xam ne moom moo nekk ci Dieyna Baldé parce que ku ko sant ku seetaan interview bu mu mënti def da nga naan kii dafa doj parce que dafa mën wax. dafa yàgg dafa yàgg depuis bi année bi muy bokk seen petit gaal dafa yàgg doy. man je la considère comme une sœur donc dañuy toog fii pour wax. pour yàq ko non juste dañ koy conseiller li nga xam ne def na fi jàll que muy kaawu Diop Isaac que muy kaawu Bril war na ko servir leçon bu nga xamante ne nii ëllëg si biir comme ni mu ko waxee dina jéem a concentré wu foncer ci carrière am. et mm. puis mu am vision boo xam ne danaan man lii laa visé te incha allah daf koy am. parce qu'elle est la am na charme bu ne ci moom boo xam ne bu ko utiliser Sénégalais yi bëgg nañ ko et puis. non yi ko bëgg. en plus l'erreur est fait def na erreur defaat na erreur d'accord dañ koy jégaloo. mais je pense bien que cette fois-ci elle sera encadrée et puis dina ah, je le pense aussi euh, Eva ñu euh, dem ci euh, coowal Wally Seck encore. waaw waali waali bii nag bii coow dafa xewoon y a des années avant mais dafa ñëwaat muy problème mu Range Rover boobu nga xamante ni sekkoon na ko kii di euh, Ibou Touré ak xaritam boobu di euh, Baye Fall. yaa ngi dugal ci lu ne. ah waaw da koy delloo des fois ay redoublé ay année ci ginnaaw dafa ñëwaat dafa ñëwaat parce que ñoom tamit dañuy jàkkaarloog juge bi mois de décembre. dafa ñëwaat foog ñu wax si. waaw article boobu gis naa ko waa ji dafa war a nuyu euh, moom ak Ibou Touré moom Fall ak l'autre là. monsieur Niang là. Mhm. j'ai oublié son nom dañu war a demaat euh, ñu àtte leen ñoom it le 2 parce que àtte bi sax ci mois bi la waroon nekk mais dañ ko renvoyé. Mhm. li tax ñu renvoyé ko c'est parce que ñaari camp yëpp maanaam ñaar ñi nga xam ne ñoom la ñu war a àtte. Mhm. jotuñu ay convocation te loolu du du yoon. donc juge bi war na mën a. Euh, xam ne que kenn ku ci nekk maanaam war na mën a assurer kenn ku nekk jot nga sa convocation. pour que li nga xam ne moom moo di àtte boobu war a am. li leeral muy coowal Ranzolo ba li nga xam ne amoon na fi ci ginnaaw. Mhm. te incha allah comme ni ñu ko waxee le deux incha allah bu ñu ko àttee dinañ mën a xam fan la fan la. dëgg gi féete voilà. parce que tudd na ci ay ay Waly ay. Ibou Touré xam nga ay mhm. ay Modou Fall ak l'ami de Waly la ak Santignan. Mhm. donc après mu jeex ah. ah ñu jàll ci leneen jeexal noonu noonu noonu jeex. ah mais dafa ñëw buñ àttee dinañ xam fu dëgg gi féete. non parce que dafa yàgg au fait dafa yàgg est ce que deful deux ans trois ans ci ginnaaw. si si. def na ay at mais bon le fait que ñu yëkkatiwaat dossier. peut-être am na lu loolu ma jaaxal loolu ma jaaxal le fait que ñu indiwaat dossier bi yëpp. des fois dañuy jàpp benn dossier nëpp nëppal ko nga ne ah fàtte nañ ko fàtte kii ba la daal ñu jékki-jékki yëkkatiwaat ko de am na ay dossier yu ñu fi war a yëkkati yoo xam ne après naa ko dee. Eva yow lan la ragal ko ragal waat kii sax ba léegi Eva yaa ngi may islam sax Eva lan la lan lañ la dégg Fatou dañ laa bëgg def ñaareel. bàyyi ma bàyyi ma mais yow pourquoi sa gëm nga may bëgg dama laa dama bëgg nga doon ñaareel artu jëkkër si caaxaan barki mu xamee du ma waat sax. <laughs> oui yooyu tax ma dugal ci kaaw ñaare Aïda Samb a tax Aïda Samb daal génn na wax na ci vidéo waaye tamit way na kii di jëkkëram sant ko gërëm ko ak a teel. ma ca xam kay <laughs> Aïda Samb dafa belli kaay yi barki yàlla. Mm. belli jóg ay décembre le fait que mu woy jëkkëram ji nag mami nag nañ waxante dëgg waaye. teelul daw yi dund àjjanaam. Ah, teelul te dañ koy encouragé non non teelul. Hmm. gis nga bu la defalee lu baax dañ ko wax nii xam nga. bu defee de ay mu hmm. jëkkër ji dina rus boobu ko naroon def lu ko metti lu ko def parce que dafay xalaat woy ko Aïda woy te Aïda. foofu elle a une ku mu woy non non da ngay toog. daal j'ai peur mais nag bon gis nañ ko par la suite def benn entretien. Mhm. di raconter vie woon te boo xoolee rongañam dal na dënam a qui veut dire que ne lu la doon mhm. sa vie peut être nee na am na lu muy réccu ci àddunaam loo xam ne bu démb doon tey du ko def. Mhm. wax na ci papaam ak yaayam mu leen ñàkkee parce que gis nañ intervalle bi nga xam ne matul sax deux mois papa ji gaañu par la suite yaay ji gaañu mu doon lu métti lu nga xam ne dund na ko mais man damay faral di dégg max ñi naan yàlla du tëj buntu tëj fenêtre amaana bu mu ñàkkee yaayam ak papaam yàlla waajur kenn mënu ko remplacer si doom mais yàlla dafay am lu muy jëlee ci lu mu la andi loo ne mhm. Mhm. nakar mënu wëy mais bànnee aussi boo xoolee bi yaayam ak papaam génne àdduna yàggul tuuti ci la ci la am jëkkër di nga mhm. ne moom ne na gën ci jëkkër yi te li ma gën a neex ci àdduna bi dafa am jëkkër yi. Mm, loolu moom wax ne ko yàlla nañu wàllu ñun ñu am ay cadeau du ciel yow. nga ko de sa war a sëy dana war a sëy donc dañ koy yàlla aussi yàlla bu ko cat fekk ci sëyam boobu. Mm-hmm. yàlla bàyyi ko jëkkëram mm. parce que ku sañoon ku nekk booy sëy ba am ne que ba sentir ne que voilà amour mu ngi fi et puis yaa ngi ci jàmm daal man su sañoon nga toog ah àgg na jëkkër ji daal yal na leen yàlla lafal cat sunu borom suturaal leen ba seytaane yi mel ni Mami Njaay bañ na dugg ci diggante bi wax ji bari na ayda toogal rek nga sëy comme nee nga sa sa waaw allah yàlla bu ci cat dugg daal macha allah dañ koy ñaanal yàlla rek cat bañ leen a topp xam nga rek cat dafa mees yaa ma gën a xam amatuñu vie bu normal da ngay génn toog restaurant nit yóbbu la ndànk foto la dem bind la. waaw mais nag ñoom ñoo siiw kii si siiwlu jàmmi borom sama papa Assane Ndiaye way na ko siiwlu jàmmi borom. wallaay ñoom ñoo bëgg siiw mais siiw baaxul daal maanaam da ngay siiw fi après lu nekk ngay dégg. heureusement man siiwoo ko ma. siiwoo ko waaye dafa mel ni da ngay waaj anniversaire da ngay waaj anniversaire doo ko ma. mosal <laughs> ma kaw fii. ay sama anniversaire yaa ngi waajal sa anniversaire de. maa ngi koy waaj lu ma loo bëgg ma jox la cadeau anniversaire parce que anniversaire yi ngi fi xew ñi di joxe ay iPhone 13 ñi di joxe ay montre en or yàlla def nga bëgg moo bëgg la ma indi lan boobu original xam nga may jël du ma indi boobu original du ma indi boobu original Eva anniversaire Omar Wade dañuy waxtaanee anniversaire ba wàcc na ba zéro yaa Awa Rasoul Sidi Diop kii iPhone 13 kii montre en sa anniversaire moo tax na ba 13 aywa anniversaire yi neex na de Omaro yaa awa rasul ko ko jox laal na montre en or Sidi Diop bokk mais kooku oh, yaa ma ci gën a xam dara bu ma dugal de eh, eh, eh. yaa ma ci gën a xam dara di yow yaa ma woo fii keroog naa man Sidi Diop ak kii nii dama ci xamoon dara. Hmm. daal waxtaanee nañ leen ba tek ñoom ñaar nee nañu ah ña nga ci relation wóor ma nekk man dëgg yàlla aw ma ci benn information. ñaaw waaw mais même même su fekkee loolu am na sax c'est normal ay voilà quoi yaa awa war na mën a nekk jabaru Sidi Diop Sidi war na mën a nekk jabaru yaa awa mu ngi dafa neex di la wokk ah yow xale bi rek anniversaire bi anniversaire bi yow loolu yàkkamti di ma dugal anniversaire gi waaw jox na ko iPhone 13. Hmm? mais anniversaire bi Omaro du woon anniversaire man ngeen jël taw laa ko tegoon ay jukkalante ay anniversaire bi xawaara lañ ko def. yow yow yëgoon ni anniversaire célébrité yi léegi noonu lay demee. jukkalante lay doon. man sa anniversaire tey su ma ñëw jox cinquante bi sama anniversaire cinq cent mille nga may laal. loolu moom dafa gis anniversaire ay ay or xam nga ay ay iPhone ay ko yóbbu ci anniversaire. di yebbi valise di yebbi. yi ñoo lay demee léegi dund gu mu xamagu ma nu muy demee daal. sa anniversaire naa la defaral loolu. yow sa anniversaire naa la defaral loolu. Eva comme temps yi dañu ma dañu sàcc sama yére yi damay lancé waale benn appel pour ni ma bëgg a may. yére sambay mbayaan gi doorati na. mami maa fóot sama yére fóotkat bi fóot ba weer ca kaw. samba booy jaay fa weer def gisoo ma temps yi damaa rafetlu. sambay mbayaan gi dangaa rafetlu Eva. mais je suis eh, sérieuse ah dañoo weri sama yére ligne par ligne. képp yi sax dañ koo yóbbaale. yow mii sàcc bi sàcc yëre Eva yi nii yéen kii waa yéen kii kii ëppal na de sa yëre Eva nga sàcc nii xanaa kooku xamul ni yow yaay journaliste bi fekk ci jamono. doomu ndey Adama boo ngay am boobu Eva Adama la ñuy tëjee. damay bàyyi nga dama la ko dama jox. Adama woyu woy moo ko tax. dama ci commentaire dama lay bàyyi nga wax. président la woy de. mais nag d'accord nag moom si benn. ak ah, nam ko woyee. Adamo dafa jël woyi Sidi Diop bu bees bi cas may dëkk ne sa réew baaxul. yow Eva Adamo fii ne moom dootul wax ci Macky Sall ndax day bañ ñu def ko comme nañ def. Eh, waaye wu ko lu garaaw nag dana ko saaga def ko dara nee na ko réewam baaxul xam ak góor jigéen yi na wax ci réewam damay yoon la man xol dama koy nuyu de partage sama mag ji Marlo non non ma papa laay wax Marlo bu séeri famille sénégalaise Marlo laa gis mu daf koy sadi mu ne ma mu ne Adama mosul wax lu ko neex lu dul lii mu woy tey parce que nee ko Macky sa réew baaxul Serigne Marième Faye waxal ci réew mi lesbiennes yaa ngi fi góor jigéen yaa ngi fi donc loolu message la moo fi toogoon ne du ma mës a wax ci Macky Sall moo ko waxoon ndax day bañ ko indi. li way li mu way ni nga yaakaar mun nañu ko si indi. mais saagaw ko xam nga ne bu ko waxoon lu ñaaw dootu ko dolli saagaw ko. Hmm. da koo rek juste que pour Macky defaraat réew mi. Hmm. en tout cas bi daal man mi ngi noonu Sidy Diop war woon nangu sax Adamo di laal di ci teg Macky Sall. Sidy Diop ak Adamo Tange xarit lañ de. ah. yaa wax loolu. waaw wax nañ de yow foo nekkoon. ah dañu daan dama gis dañu daan rayante rek ñoom ñaar dañu rek waaw ci Adamo lañu lañu lañu tëjee eh, eh, Eva mooy son na liy génnee son man Adamo ki si Diop ki koy man kooku laa bëgg a xam. kan mais dafa baatam dafa neex. bu baatam neexee <laughs> bu baatam neexee itam woy ci dara lu baax <laughs> comme dara am am baatam dafa neex. Ruube nee na ko woy woy yi ngay woy kan moo ko fi mos <laughs> a woy. waaw noonu la ñuy demee daal di tàggatoo mu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi internet ñu doon seetaan. merci beaucoup mami mbégte la doon doon may ànd ak yow ci biir Sunugal People comme ni ñu koy defee rek saa su nekk waxtaanee ko. indi hmm. nekk loo xam ne ay e, actualité people la. Hmm. nay laaj may tontu rek comme man maa sopp waaw yow yaay lijjanti yaay topp kaa man topp ma benn kaa man dama wax nii rek Eva moom muy développé man ay kii rek laaj la waxoon na ma ko fi nee na ma comme yow booy laaj lu gën mësul laaj hmm. ma tontu la lu ma mësul waxee noonu la ñuy def rek euh, daal di euh, tàggu ñu non balaa ñuy tàggoo nag tey bëggoon encore non non Evista Makeup moo jaar ci sama kër bu nice bi Evista Makeup ci fiiñ bi yaa ngi dégg hmm. non xale bu mën lu muy def macha allah te dafa yëwan hmm. boo ko xoolee at yi mu am danga naan kii naka la def ba investir lii amaan na gëm boppam et puis dafay dafay jox amour bi lu muy def. comprendre nga yow du ñàkk ma yóbbu la ko mu defal yow yu baax xam nga defal la ci période yu baax yi mu ngi fiiñ bi janoog école janoog école njarka jay mhm. képp ku bëgg make-up bu baax période yi gis nga ni ñu koy defaree nii un man ngay teg période ma teg weer yi nga xool wala yow defal lu la sax un mois mën ngay teg période bi laa la wax de du tax def ngay def nii boo génnee boo génnee ba topp rek. non topp yaa ngi publicité di. waaw kontaan man moom wax dëgg yàlla kontaan naa ci rafet na trop waaw génneel génneel na la fu nooy nii. waaw léegi rek noonu la ñuy def tàggu mbokk internet yi nga xamante ne ñoom ñoo safoo di suivre programme Sunugal 24 saa su nekk waaye laata may dem rek man tamit Eva. damay remercier bu baax a baax benn famille bu nekk foofu ci euh, parcelle unité 15 famille Gomis plus particulièrement kii di monsieur et madame Gomis Vanessa ak Prince macha allah aw seen fay. ñiy wax li olof di wax naan dëkkandoo mooy mbokk ñooñu dañ koo dëkkal dañ ko dëggal bu baax a baax jaayuñu yére Eva rek leen wax dëgg yàlla dañ may taxawu dañ may taxawu. noo xamante ne nii macha allah gisuma tey mbokk bu ma koy taxaw instant bi nii parce que ñoom laa dëkkal wax dëgg yàlla di ma téel sama doom saa su nekk sama liggéey gis nga ni mu demee toul le temps yaa ngi bouger de gauche à xalifa nga xam ne dafa tur xale bi dafa dafa rakkaaju may nuyuwaale tamit may may nuyuwaale tamit ndeysaan euh, jumeau boobu noonu boobu nekk foofu mu di Charles bu baax moom tamit xale bu yaru macha allah Vanessa ak Prince ñooy euh, ñooy ay parents am di leen baax a baax yéen mbokki internet yi nga xamante ni yéen a safoo di suivre programme Sunugal 24 saa su nekk di leen jox rendez ci beneen numéro émission Sunugal People